léegi ginnaaw bu ñu waxee itte wax nañ ko waaye lan moo koy sa lan moo ko mën a may nit ki daa daa laaj ñu jàngat lan mënu ko mën a may ñu xool ba xam yàlla wala nañ ci mën a jaar wala déet kon lii sabab itte ju kawe bokk ci li ci gën a fës xam-xam ndax nit ki mënta bëgg lu mu xamut mënta aj itteem ci lu kon léegi xam gi mooy li gën a ci luñ mën a amee itte ju kawe ndax bala ngaa bëgg daal da nga ko xam nit du bëgg lu mu xamut lu aj ittee nit ci lu mu xamut moo tax yonente bi yàlla digal ko ni ko waxul rabbi zidni ilman moom daf ko ne neel nag ma dolli xam kon la ci jëkk mooy fexee dolli ko xam ngir sa itte a kawe ndax loo xamut doo ko doo doo ci mën a yëngatu doo ko bëgg sax jàng alxuraan te di ko settantal bokk na ci lii maye xam-xam waaye bokk na ci lii maye itti ju kawe lii maye itti ju kawe ndax danga ci gis danga ci gis lu ne ndax alxuraan dafa teew dafa nekk li li teew ak la jàll ak li ñëw boo ci amee ak santal nag mën naa pousse sa ittee ba foo toll na ko weesu waaye jàng siira yonante bi sallallahu alayhi ak fi xam ni ak ndaan fay la fekkoon ittee ju kawe moo tax mu taxawal li mu taxawal jàng seede ba ak lam ci daj ak lam ci doon sonne ak la tax lam taxawal fa mu jaar mu taxaw dana tax nit ki itteem kawe dana tax dina kawe la di ko di ko toppaat baax toppaat seede bi di ko diglu ko bàyyi xel naka noonu nit ñu baax ñi fi mas jaar te doon ay kilifa dëgg te taxawal fi dara yi ngay xam seeni histoire seeni jaar-jaar dana yëkkati yëkkati ndax yow boo juddee rek gis ñu naan Sëñ Tuubaa Sëñ gis ñii ak njabootam ñu di kat kat di leen warmaal di leen barkeel di leen naan nga jàpp ne doo xam ne ko saw dëgg de doo xam ni moom Sëñ Tuubaa woote wutoon ak nguur jógutoon ngir lenn lu dul ngir jëm yàlla boo xamee ni sëriñ bi am na weer wu mu woor ba mu jeex fépp ñam duggul ci gine ab xaar la teg bu dog jotee mu mu dugal ci baaraam def sunnas dog bu xëdd jotee mu dugal baaraam ba jot ndox mi def sunnas xëdd bi ba weer jeex ak coono yu mel noonu nag yu bare bare bare bu boobaa dana dana tax yow foo toll rek nga xam ne doxagoo meetar pour nga jëm a ko yóbbu kuy waaye xam ne comme boo borom itte ju kawe xam ko dana kawe itte xam aw doxin